salaamaaleykum sama mbokk sénégalais yi ñu ci biir réew mi ci bitim réew ñi nga xamante ni ñi dégg nañu kàllaama bi di ñu bégee di ñu déglu saa su ne ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp macha allah gannaaw bi ñu julee ci sangu-sang yi seydna muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi ngi ñaanal jaamu yàlla yi nga xamante ni ñi ngi teewlu bon di wax rek tey am na benn waxtaan bu ndaw rek bu ma bëggoon tey jël ko comme comme sujet du jour mooy euh, warante bi ak naxante bi yi nga xamante ni moom la nit di dëkk rek dëkk ci euh, wàllu liggéey bi comme ñi nga xamante ni en général da ngay gis ñoo xamante ni dañuy nekk rek ci euh, bu ñu jaaxle da leen di gis daañ la wax lu nekk daañ la jooy lu nekk nga defal leen lu nekk di leen toppatoo di leen jàppale di leen di leen tatagal di leen di leen dimbali mais su ñu demee ba certain moment rek nga gis seen mbir baax wala daal seen ay euh, situation di soppeeku euh, dañuy def ci nga xamante ne mooy euh, li ñuy tuddee wor li ñuy tuddee daal daal di disparaître rek daal di lay laqatu rek dootoo leen dégg dootoo leen gis mu nekk lu nga xamante ne nag vraiment neexul ci xol te du encourager vraiment góor yàlla góor yàlla moom li koy encourager mooy euh, yàlla moo ko tax a jóg mi ngi jàppale jaam dëgg la mais aussi euh, sàmm sa kàddu dafa neex comme par exemple nga sàmm kàddu ko nga xamante ni mi ngi lay jàppale suba ngoon ku teg bëccëg mi ngi lay dawal safa ak marwa heure boo jaaxlee mu nga woo ko téléphone mu dimbali la Ah, jël ay bagaasam génne kurusam di la liggéeyal di bind di la yónnee di la toppatoo vraiment bu bu bu sa buy li nga waxanteeg moom vraiment warul baax nga daal di koy eh, nax wala nga war ko wala nga disparaître wala wala wala te yooyu mu nekk ay eh, vraiment ay eh, comportement yoo xamante ne jaamu yàlla doomu aadama bu baax daal waru ko jikkowo warante bi nag du ci côté sunu liggéey bi rek mais warante bi nekk na ci côté yëpp nag même secteur yu bëri da ngay gis euh, léegi jamono ji ay naxante rek da ngay bëgg dara ci nit dana la jaral lu ne nag nga waxtaan ak di kaf ak moom di réew moom di duggante ak moom fu ne di di jéem a xool lépp loo nga xamante ne rek fa ngay jaar ba lekk euh, nax-naxal ka ca la muy liggéey nga utiliser ka jël euh, jël xam-xamam ba wala jël dooleem wala jël ñaqam ba pare daal kay bàyyi ci biir yooyu nag mu nekk ay aq mu nekk ay wor yu nga xamante ni daal euh, doomu aadama waru ko jikkowoo nañu bàyyi xel ni carrément wor baaxul naxaate baaxul ak di Euh, euh, di dunde ci ci ci ci ci diggu ginnaawu jaamu yàlla bi nga xamante ni innocent la mi ngi toog di jaamu yàlla di góorgóorlu di daal di di mm, di seet rek nit ku jaaxle pour mu euh, génne ko ci njàqare mais lépp looy wax ak moom nang nga ko seet na nga ko seetantal loo mën waxal loo mënul bul ko wax comme ça moom ëllëg ak sibir bis boo disparaître wala boo demee moom du wax ne da nga war wala da nga def lii da nga def la parce que lu tax ñu jël sujet bi parce que dafa am ñu xamante ni en général bugguñu loolu boo leen defee loolu mën nañ la sànni dara mën nañ la liggéey wala ñu nongu liñ la defaloon si lu baax wala nga dem ba say mbir baax ñu am luñ la euh, ñu rocci seen sirru wala ñu rocci seen ñaan yàlla mu nekk musiba si yow yooyu mu nekk ay tasum yaakaar yu nga xamante ni doomu aadama yi ñu ngi koy def ñu yaakaar ni rëcc nañ war ay nitu yàlla dem bay jamono yaakaar ne rëcc nañ seen mbir yëpp yàquwaat loolu nekk na lu nga xamante ni daal doy na waa trop trop te nit yi war nañ ci bàyyi xel nit war nañ ko war nañ ko moytu daal waa nañu nit ñi di moytu ay euh, war di moytu di naxaate di moytu di di yàqalaate ak di def lu mel na mm, wax nit te defoo di di wax nit te te doo ko jëfe yaa nañ yàlla may dégg topp daal te musal nu ci war musal nu ci ah, jubadi ak lépp lu nga xamante ne day yàqal doomu aadama allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim sëñ Thierno Amadou Lo woon ci waxtaanam wala yaa nañ yàlla may dégg ak topp ba suba incha allah ci kàttan suñu